jóg nañu bi daanu na saf naan nañu fas fatt bakkan drapeau bi daanu na Papa Sall El Capo jug na Papa Sall xa waaye ki nga xam ne mooy laaw moo génn Papa Sall El Capo sikki mu ko Papa Sall Marie Pierre lan door mu génn moo wéeru ci ligne bi waane na gaay yi génn nañu waane xaatim El Capo deuxième position El Capo deuxième position Xaatim troisième position gars yi jóg nañu. Eh, Marie Père lañ dóor mu génn waaye deuxième position. du Marie laaw la ko laaw lañ dóor mu génn. deuxième position El Capo troisième position Xaatim la position Bell la Papa la sama yaram Papa Sall 19 partants yi mu ngi may fàttali 19 partants Bawol gis El Capo ak laaw nekk nañu benn fas waaye li la sama yaram nag gars dañu ko xaaj ñetti Papa Sall ki nga xam ne mooy laaw moo génn El Capo sikki mu ko waaye gars daw nañ ñëw 2200 mètres daw bu ñu ñëwee dañuy delluwaat Papa Sall dawal jotagul. dawalaguñu la ilaha illallah. waane dawal nañu maram daa ay waay paa yaa ngi yuxu dawal nañu ko mu fekk deuxième mais ne el dawal nañ ko waane bu léegi laaw bañ na laaw waane el capo wéeru na ak laaw dafa bañ waaye el capo da ko wéeru ah, el nañu wéeru nañu koso nag commencé naa daal di dawal Papa Sall nag el capo génn na définitivement waaye ki nga xam bi da koo téye Papa Sall dawalu ko ko lim soxla dëgg dëgg dëgg waaye ki nga xam ni mooy laaw el capo génn na jox na leen distance waaye gars yi ñu ko sikkimu rek laaw mi ko sikkimu docteur Diakhare mi ko rax waaye dawal nañu maram daa El Capo génn na El Capo génn El Capo génn El Capo génn El Capo génn El Capo génn El Capo génn na. waaw xam nga El Capo dafa génn waaye ñu ngi téye xaatim quatrième position waaye nag xaatim léegi gars dawal nañu xaatim léegi ñuuxu na leen wuti na El Capo xaatim wuti na El Capo gars dawal nañu. gars yi dawal nañu. xaadim El Gabon Daara Jolof nii la ñu nekkee woon xaadim El Gabon Daara Jolof nii la ñu nekkee woon nii lan fii nekkee ndax nan meloon Daara Jolof duñ ko melaat Lougaloo ci teewaayu ministre Matar Ba dama ci teewaayu ministre Matar Ba El Gabon bañ na El Gabon xaadim El Gabon Daara Jolof du xalaat la ilaha illallah lu rëy El Gabon xaadim El Gabon xaadim El Gabon xaadim El Gabon xaadim le capot raw na. c'est raw bu demee Diass ma raw leen bu ñu demee Daara ma raw leen ñu ñëw Louga loo ñu daw ren kan. xam nga Papa Sall El Capo grand prix bi xam ni moom la raw mooy grand prix du ministre Moustapha Diop di maire Louga El Capo raw ko ki xam ni mooy borom mooy Omar Ba junior yëpp ngoone Fatou Malène borom digg sekk na raw nga leen Louga raw leen Deew raw leen Daara raw leen Mbacké raw leen Kaolack raw leen Fatick. man da sa bàyyi la woon ne géwal yi ba ko lay ba heure suñu war heure jot dem jot ñu dem yàlla bah ngi ndam di sant bu baax baawooy baayam Mor Njaay baawooy malam waaw waaw motor saala bi nga jujur naw sa maam hmm. mal bi ci gerte geeg da nga ñol may ba nga du amar ko ba kole yàgg ya, nga ci naaru la ci naaru góor nga juddoo naaru góor a la mag Omar ci naaru góor nga juddoo naaru góor a la mag ci naaru góor nga juddoo naaru góor a la mag ci naaru góor nga juddoo